lañ ko doon wëree mooy jàpp na ne dossier bi nga xam ne moo xew Ousmane Sonko moo nekk ca ginnaaw waaye gis nañ ko tey mu déparé këram 11h jubali si fi nga xam ne mooy si cybercriminalité moment bi nga xam ne moom la ñu wax de 11h jusqu'à 21h 16 minutes moom moomee moo ngi si biir mu nekk si moment boo xam ne ay avocat am yëkkati nañ ay kàddu wax lu ñu wax mooy jàpp nañ li ñu amagum si information mooy wàllum diffamation wàllum injure Euh, yooyu daal la ñu jàpp ne fi ñu toll nii moom moomee moom la ñu koy euh, teewee gum fi ñu euh, nii. jamono gi nag ñoo ngi xaar ay avocat am à tout moment peut-être mën nañu génn. jox ñu li nga xam ne moom lañu jàpp waaye si beneen wet bi aussi. li ñu mën a wax gis nañ ñi fare si kuje gi mooy Macky Sall wala tey waa APR wala benn bokk yaakaar si boppam dégg nañ ñu def benn communiqué jàpp ne li nga xam ne moom la ñu jàppee Bougane jàppee ko ki nga xam ne moo di Diégui Diop tey maanaam woo si Diégui Diop woo si Cheikh Yérim Seck woo si ki nga xam ne moo di kadeer ñoom dañoo jàpp ne fi ñu toll nii acharnement la boo xam ne moom la ñu nekk di def ca beneen wet bi aussi coalition bi nga xam ne moom la ñu mën a tuddee sàmm ca kàddu te Barthélémy Dias nekk ca Khalifa Ababacar Sall Serigne Moustapha Sy Déthié fal ñoom ñoo ñëw aussi def nañ seen communiqué di andi seen soutien si ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany mais aussi doon loo xam ne jàpp nañ ne ñu bàyyi li ñu nekk ni di xew buñ ko bawee leneen mën léegi nag dañuy xaar euh, bi ñu koy convoqué nag xamuñu woon exactement les motifs mhm. waaye bi décision bi wàccee xam nañu exactement lan nga ko doon lan lañ koy toppee mhm. wax nañu li nga xamante ne moom mooy diffamation waaye tamit wax nañu tamit li nga xamante ne moom mooy euh, euh, diffusion de fausses nouvelles mhm. donc tamit je pense que daan euh, tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko ci kawam day rejoindre aussi les accusations yi nga xamante ne moom moo dal ci kaw Cheikh Yérim mhm. le plus important c'est que il faut que ñu xam ne que dans un pays on est démocratique te am na loo xamante ne foog ñu respecter ko c'est le plus important mhm. nañu respecter ñi nga xamante ne tey jii ñoo nekk au sein de cet état question bi mi ngi waroon nekk Aujourd'hui, si le Premier ministre Ousmane Sonko génn avec son gouvernement wax sur la situation économique du pays ñi nga xamante ne nekk nañu ci pouvoir bi wala ci opposition bi war nañu def des appréciations yoo xamante ne ça va beaucoup plus euh, euh, sur les débats d'idées ñu toog waxtaanee ko mais par contre quand on contredit euh, le chef du gouvernement à travers des informations incorrectes loolu day indi yenn problème yi et loolu moo tax tey jii ñu convoqué leen ñu xaar ni tamit euh, la suite des choses Albourakh. Hmm, d'accord kon mi ngi noonu merci Mamour. ñoo ko déggandoo xam ne moom lañ doon woowee Sonko Diomaye ndax même dossier yooyee moo nekk di xew boo xoolee di nga xam ne am na benn différence boo xam ne am na waaye lu si mënti xew daal ni nga ko waxee ne euh, fii dégg nga ministre bi nga xam ne moo di ministre justice li mu wax mooy jàpp nañ ne du nekk règlement de compte jàpp nañ ne acharnement du am waaye aussi nga seetlu ne nguur gu bees bi ñëwee am na lu ñu dund si wàllum injustice et ma jàpp ne du ñoom ñooñee tey ñoom ñooy jël injustice di ko teg ci li nga xam ne moo di ay kuje ndaxte boo xoolee même ni ñu ñëwee au pouvoir dañoo génn kaso ñu defal leen am amnistie ñu gis ne ñoom ñooñee ñu génn ba tey fi ñu yegg si loolee may leen ko ma jàpp ne ñoom ñooñee tey fi ñu yegg si rawatina li nga xam ne bi ñu ñëwee def nañ li nga xam ne moo di assise si wàllum justice nan la ñu toogee nan la ñu waxtaanee mais aussi am lu am solo loo xam ne dañ cee war a bàyyi xel et que les sénégalais ñoom ñooñu ñoo ko doon wax te am na ñoo xam ne aussi moo ngi leen di dalagum retour de parquet yu bëri jàpp naa ne loolee warul nekk li nga xam ne moo di jaar yoon mais aussi jàpp nañ ne dans un état de droit chacun est libre kenn ku ne war na mën a yëkkati joxe li nga xam ne moo di xalaatam waaye xalaat gi ngay joxe aussi na doon loo xam ne doo di diffamer nit na doon loo xam ne boo koy wax day dëggu waaye aussi na doon loo xam ne doo yëkkati ay kaddu ñaaw di ko jëmale ci ay nit rawatina un président de la république rawatina ki nga xam ne moo di euh, maanaam tey premier ministre ndax boo seetloo am na ñu bëri ñoo xam ne tegagum nañ loxo. dañ naan acharnement la dañ naan ñoom ñooñee jaay doole moo tax ñu def leen ko mais est-ce que tey ñoom kenn ku ne boo si jëlee ndax di nga jàpp ne acharnement la boo xoolee kàddu yi nga xam ne moom la Bah Diakhaté woon mais kaddu yi Bah Diakhaté yëkkati woon est-ce di nga ko yëkkati jëmale ko si président de la république est-ce ko yëkkati jëmale ko si premier ministre est-ce que di nga ko yëkkati jëmale ko si li nga xam ne euh, mooy sa du am mais boo xoolee aussi commissaire Keita mi nga xam ne moom la ñu wax ay ma jàpp ne moom aussi mag la lu mënti xew war nañ ko mën a déglu ah, peut-être mu bañ a dund mais boo jàppee ci moom li mu wax di nga ne ah, tey di nga dégg wala ñeen ñu faral ci société civile ne dañoo nekk ci réew commissaire Keita li ñu ko téye waruñu ko mën a téye mais est-ce que tey nga nekk ba nekk commissaire mais aussi nga nekk mag nga ne Ousmane Sonko ak Diomaye dañ doon xeex mais ci ban base nga yëkkati wax loole mais est-ce que tey loolee tey buñ ko boyee mu dem suba kat doo dégg ne président bi moom ak jabaram dañ doon jotee ca palais ay fa mbir di tàmbalee dañoo nekk dans un de droit mais bu la wóoree ne commissaire Keita kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko wóor na ko ne am na vidéo sën ko bi ñuy xeex bu demee teg ko kenn du ko tee mais boo bàyyee loolu tey commissaire kayta wax suba nit dina ne kat Diomaye aw beeg ñaareel bi dañ doon xeex ca pale en fait bu ñuy bay bayal dara di ko bàyyi mu dem loolee nekk continuité bi beneen bi aussi kaddu yi nga xam ne moom la Kader yëkkati imagine li mu yëkkati. au moment où ñu ne la plus de trente personnes dee nañ moment boobee sénégalais yi booba tey di métti du nit ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan mais nga dégg Kader ne ñi nga xam ne dee nañ mën nañ wax ne bi ñuy dem ca gaal ba si boppam police la ñu corrompe am na ay preuve am même boo xoolee ñi mu nekkoon si télé bi dañ ko woo ne ko Kader est ce que xam nga li ngay wax léegi sa fait l'occasion mais au nom de quoi tey lii Kader wax bu nekkee am na preuve maanaam preuve day jàppale famille ñi nga xam ne ñooñu ñoo de tey yaa xayti buñ ko woowee le minimum mooy kat am naa ay preuve na génne nañ génnee ban police lañu maanaam la ñu korom fan lañ ko corrompé ndax état mën a jël wala ñi nga xam ne tey ñoo nekk foofu mën a jël ay matukaay yi daan ñooñu mais est-ce que li mu wax am na ci firnde danga naan naam amu ci firnde mais boo bàyyee loolu Kader wax tey est-ce que suba mënoo bàyyi beneen nit ne bànje gi si boppam moom ak liñ koy téewee ndax tey mën nañ jàpp ne am na si ñoo xam ne dañoo faree si passif dañ ko jox li nga xam ne moo di ay fetal en fait la sécurité publique aussi. ji nga ji nga damaa jàpp ne mën nga opposé wu mais nga teg ko si looy wax na doon dëgg mën damaa jàpp ne mën nga joxe sa xalaat si réew mais na doon loo xam ne sa vision la sa xalaat day doon waaye du doon kàddu yoo xam ne dafay dépasser kenn waaye aussi mën nga nekk ci réew def ses révélations man yaakaar naa ne nguur gi ñëw ne ñoom tey les lanceurs d'alerte ci boppam dañ leen war a protéger mooy tey ah maanaam progression la mais tey ñan ñoo nekk lanceur d'alerte mais est-ce que tey mais est-ce que tey mais est-ce que tey li nga gis ñenn di ko def ndax lanceur d'alerte la et effectivement ñu ko waxee wax buñ ko bëggee buñ ko bañee li Kader wax ci benn huit mètre da nga koy nangu mooy du ma ne ñooñu moo corrompe ñooñu mais corruption bi moo ngi fi boo rombee léegi ci tali bi am na ay chauffeur yoo xam ne ñoo ngi nekk di ger Guy Marius Sagna gis nga ko la fois passée mu des ci benn poste wane joxe des informations preuve yu leer nga xam ne lii am na ñun les sénégalais ak nguur gi ñëw yaakaar naa ne waruñu ànd ci li li nga xamante moom mooy euh, retour de parquet donc mu nekk tamit benn information boo xamante ne amuñu fi woon une exactitude donc li ñu mën a leen wax rek mooy euh, le chef du parquet de Dakar va ouvrir une information judiciaire sauf change de programme. Mhm. waaw boo ñu ko tënkalee ci wolof. waaw euh, retour de parquet pour euh, Cheikh Yérim gannaaw ba ñu ko convoqué woon démb placé ko en garde à vue tey jotoon nañ ko présenter le procureur donc lu ñu leen mën a wax mooy amaat na ni nga xamante moom mooy retour de parquet ñi ngi xaarani tamit les autres développements yi nga xamante ne jóge ci wàllu boobu. comme Kader moom itam am na retour de parquet quand même. waaw effectivement donc je pense que actuellement vu que c'est des enquêtes yi nga rester dans le cadre professionnel c'est ñu xaare ni les autorités compétentes les développements yi nga xamante ne war nañ ko def si sens très bien merci beaucoup jóge euh, ak ku mu mënti doon yaakaar naa ne booy jëlee président yëkkati kàddu yoo xam ne waroo koo yëkkati jëmale ko ca moom yaakaar naa ne yoon dafa war a dal mooy même ñi fare Pastef dañ ko war a xam tey nañu xam ne ñoom ñooñee bu ñu yëkkatee kàddu yoo xam ne dafa méngoog yooyu jot jet jet dafa war a dal seen kaw comme ni mu dalee nii loolu li muy wane mooy dañoo jógee si 12 ans yoo xam ne les sénégalais bëggatuñu kumba am ndey ak kumba amul ndey dañoo jóge ci 12 ans yoo xam ne les sénégalais bëgguñu li nga xam ne moo di retour de parquet yu bëri les dañoo jóge si 12 yoo xam ne da ngay ñëw les sénégalais ñëpp xamoon nañu juge yi fi nekk ñu sànni ji leen fi nga xam ne moo di Tamba mais dañoo bëgg aussi réew moo xam ne justice bu libre justice boo xam ne dañuy teel a traité dossiers yi ñu xam mbir ñi fa nga dem mais moo moo gën nga ñëw ñu yóbbu la kaso si mois bañ a lijjanti li nga xam ne mooy seen mbir mais aussi dañoo nekk si réew moo xam ne chacun kenn ku ne da ngaa war a responsable responsable aussi mooy yéen kàddu nga yëkkati lan nga war a wax sa ak li nga wax it fan nga ko war a teg xam naa ne buñ ca nekk mën nañ ko see bañ a sori mais am na ñoo xam ne bu réew mi dafa am ñuy kujje am na ñenn ñoo xam ne dinañ leen teg loxo ñoom ñooy waxlu ba tëjlul seen bopp euh, nit buy opposé wu danaan lii ma bëgg am sama opposition foo ma am fu ma ko jaaree nan laay def ba déstabiliser li nga xam ne moo di institution yi nan laay def tey bu nekkee benn général dañ ko jëlee fenn yóbbu ko nga ne général boobu kat looloo xew ñi nga xam ne dañuy opposé wu bu ñu utiliser wul programme idée leneen la ñu jëm utiliser mooy nan la ñuy def ñoom ba li nga xam ne moo di tarixa yi wala li nga xam ne tey moo di conflit euh, maanaam di nga dégg tey ñu ne yëfi murit yëfi tijaan di nga dugg foofu mais aussi ñenn ñi nga xam ne dañuy opposé bu ñu jëlulee seen i responsabilité nangoo tey andi li nga xam ne moo di xalaat ak vision nangu andi li nga xam ne ci waxee laay waxee sama caméra wu ngi nii sama caméra ku laax jaay da ngay lii ah, d'accord d'accord ñooñu da xool aussi Euh, da nga ñoom ñoom ñoom ñoom euh, nguur gi fi nekk alors moom nag loolu la daal di euh, xamle moom mi nga xam ne moom mooy Pape Djibril Fall ñu desandi ba tey ci information yi ne ginnaaw kàddu yi nga xam ne itam ma Madiambal Diagne wala avant ñuy ñëw ci ma jambal Diagne sax keneen koo xam ne itam yëkkati na ay kàddu di Thierno Alassane Sall moom itam def na li nga xam ne moom mooy communiqué pour wax itam ci li nga xam ne moom moo jëm ci li nga xam ne moom mooy li xew Bassirou ak Sonko ne leen kaay leen xam nga ñoom li tax may wax loolu dañoo nekkoon si réew mi yàgg wax ne lii baaxul lii dafa bon lii am na lii lii dafa am mais man damaa gëm ne boo bëggee opposé ak ñoom demal indi seen i vidéo dagg leen ne ko yaa waxoon lii yaa waxoon lii yaa defoon lii yaa defoon lii yaa defoon lii mais est-ce que li nga wax loolee am na man yaakaar naa ne kujje googu laay xaar beneen bi mooy aussi dañoo jëm ci élection législative et dans peu de temps xam kan mooy kan. d'accord rek toog ah condition sont une offense à l'état civil mooy bien, vous en largement là il y a peu Thierno Alassane Sall moom nag loolu la